ñëwaat ci aspect yooyu yëpp euh, parce que euh, liggéey naa ci lu bari ci at yu weesu euh, xam naa ni au la de l'exploitation xam pétrole ak gaz mën na amal njariñ askan bi njariñ bu am am solo waaye it nañu jàpp ni ni ko nit ñi jàppeek ni ko nit ñi yaakaare du doon rek loo xam ne tey tey lay sotti wala tey tey rek lay lépp di soppeeku kooku aussi baax na ñu di ko ñu di ko fàttali nit ñi moo tax euh, man bariwuma ci li ma ciy wax ndax euh, am na nooy yaakaarloo nit ñi mën na demee noo xamante ni nit ñi seen yaakaar dafay tas ndax il ko mu am nu mu taxawee am ay at tuuti balaa ñuy mën a gis la nga xam ne dina ko jariñ ba ñëpp mën ko ku nekk mën ko yëg kooku processus bu gudd la boo demee ci réew yi ko am da ngay xool ci ay at yu baree bari la réew yi toll fi ñuy doog a toll kon ñu mu am euh, ñu ñu muñ tuuti mais incha allah yooyu yëpp dinaa ci dinaa ci dinaa ci ñëwaat. waaw euh, dama bëgg yeneen aspect yi nga xam ni dafa génn ci ci ci ci fan yi muy ay aspects yoo xam ne dafa jublu ci wàllu politique wàllu économie incha allah ci fan yu néew dinaa ci ñëwaat tey nañu yem rek ci julli ji baalonte àq baal ñëpp euh, àq di baalu ñëpp. jël ay patron de presse né ñom ay satch lañu man dama gérer 1080 milliards cinq ans ñu jox ma absence de redressement ñom wa impôt ñoo ko jox kon du deux milliards moy yak suma der man Bougane gey man awma ndariñ ci Abdoulaye Wade awma ndariñ ci Macky Sall musuma am privilège du ci Abdoulaye Wade du ci Macky Sall kon buma ma kenn di joxagne wala dima ma sorxo sorxo non déggoo luma ma la wax man samay compte sama alal sama compte sama alal sama bakan sama compte sama alal sama bakan ak sama liberté jaayee nako ko njariñu sénégalais yi donc moi je n'ai pas ce problème là ce qui est clair moy man bougan, du ma fuñuy fu duma bok ma ci ñuy et donne sache, moma gënal fenkat man mané ne doon moma don gënal fenkat waxuma laak nak fenkat bo xam tribunal néna na yow fenkat nga